fédération bi ëmb liggéeykat yi nekkee ci Sénégal di FGTS authentique ak B bi ñoom nag boole nañu seeni doole ngir dal di amal ab protocole d'accord bile coalition bu centrale syndicale yi li mu bëgg rek mooy doléance yi ñu dal di joxoñ dund gu cher gi waaye tamit fexe ñu tollale liggéeykatu état yi. ñuy wax affaire yi liggéeykatu collectivité territoriale bi man mi umpaleelu leen ne pendant ñaari at a ngi nii ñu ngi grève grève bi lu ko waral ni ñu amal ay revalorisation salariale yu ñu ba ñu fas yéene bañ a fay. le ministre Moussa Balla Fofana woo nañu pour ñu daje mais bu mu ñu wooyee bu ñu daje aussi lu mu wax ñun dalu suñu xel. cette loi a été votée depuis le 30 mars 2011 ba léegi ñu def application de cette fonction publique mais pourtant ñoom lépp lu ñu bëgg a régler si urgence ñu ngi koy régler bu ko fàtte travers ko secteur euh, gis nga Sénégal dafa wopp boo seetee secteur de l'hôtellerie au niveau de la santé au niveau des enseignants partout il y a des parce que les Sénégalais les travailleurs ne sont pas contents. tey nag équation bi gën a rëy mooy FGTSB toogul ci table bi ñuy amalee ay négociations ak nguur gi li ko waral mooy coow li am ci légitimité post secretaire général bi nga xam ne ci am ak Boubacar Sissoko ñoom ñoo koy xëccoo. état tamit dafa bëgg a créer benn conflit boo xam ne existé wul ñun kuréel boo xam ne la FGTSB vingt secrétaires vingt syndicats professionnels. ñoo ko seq waaw vingt yi def seen congrès sur les vingt les quinze nee ma ne ñun Moussa Sissoko la ñu fal mu nekk secretaire général. suma ma baat si kaw nañ ma dégg bu baax ñoom ñoo bëgg a créer conflit mais amul conflit nañu jël seen responsabilité mbir bi dafa leer nañ. ñu ngi nii xay xañ nañ ma tey man suma camarade yi xañ nañ ñu dem palais xañ nañu ñu suñu subvention. naam fet la. waaye tamit ci la ñuy dal di dikkee ci li leen naqari muy fête du travail doon na ab prox ndoll ci coalition bu fédération générale bi ëmb liggéeykatu Sénégal yi ñu dal di sargal kii di sidiyaan Yane mi nga xam ne xeex na bu baax a baax ngir bile organisation mën a jëm ci kanam